asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 ni ñu baaxoo di ko defee ajuma ju jot di ànd ak yéen ci lépp lu ñeel wàllu wér-gu-yaram eh, di am mbégte tey di dalal ki nga xam ne moom mooy Pape Mamadou Diagne Pape du jaañ nag moom mooy njiital association bi nga xam ne moo nekk fii ci Sénégal di xeex eh, lépp loo xam ne jëm na ci eh, wopp buñ naan lèpre ñu gën ko xam ci ngaana euh, bu weesoo loolu yi tamit mu yëngu ci li nga xam ne moom mooy wàllu maladie tropicale négligée maanaam ay tawat yoo xam ne daal dañ leen ñàkkal fayda buñ ko mënee waxee noonu waaye euh, moom buñ ko joxee kàddu gi dinañu gën a expliquer rek euh, la mu doon. bu ko defee rek ñu jox ko micro bi mu daal di kon nuyoo ak mbokki auditeurs yi balaa ñu dugg ci waxtaan bi. Hmm. jërëjëf soxna si ginnaaw bi ma la nuyoo nuyu auditeurs yi ñuy déglu. Hmm. Euh, di la remercier aussi ci invitation bi euh, pour que tey ñu mën a waxtaanee feebar bi nga xamante ni moom la ñuy wax feebaru lèpre. Mm-hmm. effectivement maa ngi jiite association sénégalaise de lutte contre la lèpre et les maladies tropicales comme ni nga ko waxee maladies tropicales négligées dafa nekk euh, maladies yi nga xamante ni dañu ko ñàkkal solo fii ci Sénégal ñàkkal solo bi nag c'est pas parce que dañu ci dul def li war mooy que dañu jàpp ne c'est les maladies à à en voie de disparition. donc moo tax ñu dugal leen ci maladie tropicale négligée te lèpre boobu ñu war a waxtaanee tey ci biir maladie tropicale négligée yooyu la bokk. Mhm. ñu lay jaajëfal en tout cas déjà ci disponibilité bi ak nangu gi nga nangu donc waxtaan ak ñun euh, ci sujet bi nga xamante ne moom mooy wàllu euh, lèpre déjà pour commencer association bi naka la juddoo. waaw jërëjëf soxna si association bi mi ngi juddu en 2014. grâce au soutien à l' encadrement de l' daaw bi nga xamante ni moom moo fi nekk depuis plus de trente ans di jàppale état du Sénégal lu jëm ci wàllum feebaru lèpre. Euh, association bi nag au départ mu ngi nekkoon ay groupe de parole yoo xamante ni dañ ko installé woon ci département yi fi nekk. c' était pour juste que ni euh, malade bu ñu dépisté mu am lèpre ñu xool département ba mu dëkk ñu mettre ko en relation ak. Euh, Euh, groupe de parole ba fa nekk pour que ñu mën ko accompagner ci nga xamante ni mooy wàllum wérgu yaramam ak ci wàllum psychologie. Mm-hmm. donc ci la ñu dem ba en 2014 ñu fédéré groupe de parole yooyu yëpp tey loolu moo tax association bi juddu. association bi nag li ko tax a juddu mooy euh, promouvoir le dépistage précoce de la lèpre euh, créer des liens d'entente et de solidarité entre ses membres. et aussi euh, la réadaptation, empowerment, éducation, moyens de subsistance donc loolu moo moo tax a jóg association bi. Mhm. Euh, buñ ko tënkee kon mooy jàppalante daal. moo ngoog jàppalante. Mhm. li nga xamante ni jëm ci wàllum feebaru lèpre ak lépp loo xamante ni moom la ñuy wax maladie tropicale négligée. Mhm. Euh, lan moo la motiver yow personnellement ba nga euh, dugg ci xeex bi ba nga sóobu nga intéressé wu ci wàllu lèpre. waaw euh, li ñu ci tax a dugg mooy que déjà ñun dañu fekk dañu dañu vivre feebar bi. Mm. Euh, association bi li ko composé mooy ay anciennes personne affectées par la lèpre. bu ñu nee affecté par la lèpre nag mën na la affecté yow personnellement mais mën na affecté li nga xamante ni mooy sa famille. Mm. donc képp koo xamante ni mi ngi yëngu ci biir association bi rek il est de près ou de loin li nga xamante ni mu jëm ci wàllum wàllum lèpre bi. Mm. donc ni nga ko ni ma la ko waxee rek man dama ko dund mu dal ma. mais yàlla dimbale ma aussi ma teel ko xam à l'état tâche comme on dit. Mm-hmm. bi ma ko xamee ma teel a faju teel a mais ci biir faju bi j'ai vu que ni y a y avait des gens yoo xamante ni vraiment euh, sonnoon nañu. Mm-hmm. Euh, seen famille dañ leen euh, abandonné à la donc je me suis dit que ni ñii ñoom ñan la leen ñoo leen di taxaw donc il faut que ñi nga xamante ni yàlla dogal na dund nañ feebar bi xam nañ ko wér. ñu essayer leen regrouper xool naka la ñuy dimbalante pour que ñi nga xamante ni feer bi dal na leen seen famille abandonné leen wala beddi leen ñun ñu nekk en quelque sorte une deuxième famille. Mm-hmm. parce que euh, euh, ñun état moo ñu bokk boot ñu ñëpp ñu bokk Sénégal su boobaa dinañ mën a dem ci état bi xamal ni ko kat am na ñoo xamante ni say doom lañu yaa leen boo njaboote ñi ngi dund doomu jàngoro bi te am nañu ay jafe-jafe bu boobaa dinañ xool ñun ak état naka la ñu mën a joxalantee loxo pour que vraiment ñooñu ñu mën leen taxaw dimbal leen dimbal bi war. ñu gis ne feebaru lèpre quand même dafa nekk feebar boo xam ne bu yàgg la euh, yàgg nañ ko dégg euh, du du feebar boo xam ne bu bees la wala yooyu yàgg na trop mais dafa mel ni dañu toogoon benn moment boo xam ne daanaka li nga ko daan dégg bareetul même ci côté ministère ak yooyu communication bareewu ci woon euh, ci peut période yii nii nga gis ne ñu ngi ciy waxaat. Euh, yow est-ce que seetlu woon nga mbir moom waaw li nga wax euh, dëgg la effectivement amoon na déficit de communication ci jëm ci wàllum feebar bi boobu na loolu nag li ko waral ci li ma jàpp mooy que xëy na peut-être jàppoon nañ ni euh, feebar bi jeex na Sénégal mm-hmm. ñi ngi woon ci toll ci élimination mais souvent nit ñi dañuy jaawale li ñuy wax élimination ak éradication mm-hmm. donc post élimination boobu ñu tolloon xëy na bokk na ci li tax xeex bi ni mu waroon taree tareetu ko noonu communication bi ni mu waroon amee ameetu ko donc ci la ñu bàyyi bàyyandi ko mais bu ñu demee ba gis ne aussi mi ngi commencé dellu si mais du dellu si ndànk-ndànk ñu ne ah jot na kat ñu jug alerter. donc loolu moo waral temps yi ngay gis ñu ciy jug di wax di dox pour que vraiment nit ñi gën ko jox gëdd gën a xàmmee feebar bi de ce fait ku mu dal nga teel a mën a faju teel a mën a wér ba doo am benn jafe-jafe. Mm-hmm. yaa ngi wax sànq élimination euh, Sénégal demoon na ba toll ci euh, période boobu noonu mu dem ba nit ñi yaakaar ne peut-être feebar bi dina fi jóge walla mu ngi ci yoon bi daal ngir jóge fi mais ñu dem ba ci biir mu amaat kon. Euh, pic bu ci amaat bu ma ko mënee tuddee noonu euh, lan moo waraloon mbir moomu solon yow dafa da nga gis ne dañoo tëdd ci suñuy laurier wala naka la exactement. waa loolu njàngat bi ma ci mën a def mooy que xam nga feebar bi euh, contamination dafa dafa yéex. Mm-hmm. parce que li ñuy wax période d'incubation bu bu ku am bi wàlle fajul wala ni mu fajoo baaxul bu ko wàlle nit dina toog lu yàgg mu door a génn ci yaramam. Mm-hmm. maanaam gën kaa neew dina toog ñetti at. jàpp juróomi at léeg-léeg sax mu dem bu fukki at ak juróom. premier si ñi door a génn. kon donc dafa doon faire boo xamante ne pour nga briser la chaîne de contamination doonul lu yomb. ndaxte mën nga traiter malade yëpp yaakaar ni jeex na mais amaana am na ñeneen ñoo xamante ne jot nañ leen wàll te mm-hmm. xamuñu ko. donc bu ñu demee fii ak 3 ans 4 ans 5 ans di nga gis beneen génération bu génn. Mm-hmm. mais li ci am solo ba am solo rek mooy que stratégie bi nga xamante ni état teg na ko fi muy ce qu'on appelle le dépistage par contact. loolu dafa doon stratégie boo xamante ni boo am solo la mooy maanaam ku ñu dépisté nga am feebar bi am bii wàlle dañu lay suivre di suivre li nga xamante ni mooy sa entourage immédiat. Mm. su ko defee li ñuy wax euh, briser chaîne de contamination bi bu boobaa dina yomb. parce que bu ñu lay suivre di suivre sa entourage immédiat dinañu permettre tey jii ku ci commencé développer feebar bi rek balaa nga yegg ci état bu buy wàlle bi. ñu mën la jël en charge jox la traitement bu ko defee foofu dañuy mën a briser la chaîne de contamination. Mm-hmm. dina ñëwaat ci kanam ci euh, liggéeyu association bi dañuy ñëw ci quand même feebar bi en tant que tel parce que tey euh, ba nit ñi ñu ngi dégg lèpre lèpre mais néew na ñu xam exactement lan mooy lèpre je pense que loolu moom constat bu général la euh, lèpre lan moo koy joxe déjà. lèpre li koy joxe benn microbe la bu tudd bacille de Hansen bacille de Hansen boobu. comme ni nga ko waxee sànq feebar bu yàgg la. donc ki mu jàpp euh, nga am forme bi ñuy wax multibacillaire parce que feebar bi dafa am ñaari forme am na bii wàlle ak bi dul wàlle. mais bu la yàlla dogalee euh, nit ki am bii wàlle te faju la ni mu fajoo baaxul. donc buy buy buy sëqat wala muy ticheeli day dégager ay gouttelettes nasales gouttelettes nasales yooyu muy dégager ci air bi ci la bacille bi ànd donc keneen ku ko noyyi bacille bi dina dugg sa biir yaram mais bu duggee sa biir yaram aussi nit ku nekk ak ni mu bindoo am na ñoo xamante nañu am système immunitaire bu dëgër donc mën na dugg seen yaram ñu xee ba ñu xeex ko rey ko ba du développé mais mën nga tase koo xamante ni xëy na peut-être dafa xiboon wala condition condition de vie yi muy dund bokkul ak euh, keneen ki ni muy dundee doomu jàngoro bi mën na dugg ci yaramam daal di développé wu bu développé wu nag ba fii ak 3 ans 4 ans 5 ans les premiers signes cliniques door a génn hmm. premier signe yooyu nag moom la ñuy wax heure picc wala wala wala tache bu xonq mais du heure yëpp moo mooy feebar bi du picc yëpp du tache yëpp donc il faut nga dem ci spécialiste moom moo la mën a définir ne lii tache bi lèpre la wala du lèpre wala picc bi lèpre la wala du wala heure bi lèpre la du lèpre donc noonu la ñuy wàllante feebar bi te noonu lay aussi mandarga woo di génn. ci nit euh, wàllu symptômes yi wax nga sànq ay picc ay heure yooyu wax nga effectivement que ne c'est parce que heure wala picc nga am nga li nga xam ne moom mooy lèpre mais. bu weesoo ñaari symptômes yooyu nga wax tey ban mandarga boo xam ne vraiment lii dañ ko gis takk ne lii de ah lii lèpre la. waaw xam nga ñun lii suñu combat mooy que nit ñi di développer réflexe. seen xel dem ci feebar bi. moo waral ñu ne tey jii boo gisee tâche bu la jaaxal wala nga gis yenn picc yu la jaaxal wala yenn heure yi da ngay dem ci spécialiste mu xoolal la. Mm-hmm. parce que feebar bi tey jii yow mënoo jóg rek ne man damay dem hôpital. Mm-hmm. pour defi dépistage ndax am naa ko wala aw ma ko il faut que ce qu'on appelle les signes cliniques génn sa yaram muy li ma wax léegi mandarga yi heure picc tache wala wala wala wala heure. Mm-hmm. donc loolu noonu boo demee nag ci spécialiste bi moom moo lay mën a définiral ndax bi heure lèpre la wala du heure lèpre wala tache bi tache lèpre la wala du tache lèpre mais ñun li ñu amal solo rek. pour que nit ñi wën mën di teel a dem ñu leen di teel a jël en charge précocement mooy que nit ñi am réflexe boobu de telle sorte que tey boo gisee tâche wala yenn kii yu la jaaxal maa nga dem structure de santé bi ñoom dinañ la mën a diagnostiquer xool la ndax effectivement lèpre la war a du du du mm-hmm. donc réflexe boobu nit ñi développé ko ci seen bopp ñun pour ñun mooy li ñu ëppal solo. Mm-hmm. te mooy li nga xamante ni mooy favoriser ce qu'on appelle le dépistage. mooy mooy premier combat bi parce que li nga wax ni néew na ñoo xam ni xam nañ ko tey bu picc amee wala ay euh, heure ak yooyu leneen ngay xalaat. que li nga xam ne moom mooy lèpre. absolument yooyu bu amee souvent. yow ndoxum siti ngay xalaat. Mm. dem di faju ndoxum siti te euh, lépp dafa doon loo xamante ni garabu ndoxum siti mënu ko faj. dafa am ay médicament spécifique yoo xamante ni moom mooy faj feebaru lèpre mm-hmm. donc pour nga xam ne lii lèpre wala du lèpre il faut nga dem ci un spécialiste moom lu ma la xool ne lii moom la te bu dee moom la aussi y a des médicaments qui sont disponibles gratuits dañ la koy jox te buñ la ko joxee bu dee da nga am bi wàlle boo jëlee médicament bi 48 heures dootoo wàlle kenn. dootoo wàlle doo tawal kenn. mais loolu day fekk ci kaw a dem ñu xool la. même boo yéexee dem. Hmm. ñu xool la. boo demee jël traitement bi deux jours dootoo mën a wàll kenn ak forme boo mën mënti am dooto mën a wàll kenn kon donc li am rek mooy sensibilisation bi ñu gën ci dox gën ci wax. Hmm. pour que nit ñi mën a am réflexe fu ñu gis tâche wala yenn kii mandarga yi nga xamante ni ñi ngi njort naan moom la ak du moom nga dem ci structure de santé yi ñu xoolal ndax moom la wala du moom. Hmm. ñu gis ne feebar la quand même boo xam ne dem ba. daal di affecté say cër. Euh, loxo yi dañ ko ci nemmeeku lu ci lu bëri daanaka mun naa ne bokk na ci màndarga yi nga xam ne ci nit ñi moom lañ gën a xam euh, stade boobu ban maanaam ban période la fay tollu daal. waaw loolu mooy li ñuy wax les conséquence du dépistage tardif. Mm. maanaam nga yéex a faju parce que feebar buy door a tàmbali ci yow ci der bi lay njëkkee. Mm. bu njëkkee ci der bi daal di évoluer dem ci neer yi. bu jógee ci neer yi nag door a dem ci yenn jàpp yenn yenn membre yi parce que neer dafa lié ak yenn yenn membre yi lu ci mel ni ay baaraam lu ci mel ne euh, sa tànk ak yooyu donc bu attaqué neer bi yàq ko ci ngay commencé développer ay insensibilité au niveau des mains au niveau des pieds tey jii sa loxo bu lakk euh, bu yëgatul mën nga jàpp xal te doo ko yëg mm-hmm. boo jàppee xal yëgoo ko nga lakk boo lakkee bu ñu ko teelul jël en charge mën na infecté bu infecté day indi yeneen jafe-jafe. souvent mën na feebar bi di daal doo xam ne lii feebar bi la. nga nekk toog kër ga muy évoluer di évoluer di évoluer ba yegg benn stade boo xamante ni bu ñu lay dépister ne la lii moo la dal fekk am nga infirmité yoo xamante nii c'est irréversible. te loolu moom kenn nu ci dellu gannaaw. c'est irréversible. infirmité yi moom boo ci tolloo lu jëm ci wàllum lèpre c'est irréversible. le centre hospitalier Rod de Malte mi ngi ciy commencé développé yoo xamante ni des techniques de de de reconstruction mais xam nga feebar dafa doon loo xamante ne lu mu yàq rek ci yoonam pour nga récupérer ko day daal di xaw a jafe voilà c'est ça day xaw a jafe mangoog lu jëm ci ay cër yooyu day xaw daal di jafe pour ñu mm-hmm. récupérer ko moo tax combat bi yëpp rek mooy que le dépistage précoce pour que ñu koy promouvoir pour que ku mu dal aussi ñu teel la jël en charge nga daal di faju daal di wér daal di continuer say activité mhm. bi nga xamante ne moom moom mooy wàlle moom nga wax ni bu ñu même bu fekkente ne day wàlle bu ñu la piqûre garab yooyu deux jours dootoo wàll kenn léegi est-ce que mun nañ nekkoon ki nga xamante ne par exemple bosam day du wa day wàlle kooku est-ce que gënul naqari faj ki nga xam ne bosam du wàlle walla non gis nga feebar bi nag li ci am mooy naqariwu la faj mhm. li li jafe rek mooy ñu xam ko xam bi moo jafe. mais faj bi naqariwul. parce que tey jii am na ce qu'on appelle la PCT mooy la poliochimiothérapie. c'est une association de trois antibiotiques c'est des comprimés yooyu tey jii bu la médecin bi dépisté na lii moo la daal automatiquement dañ lay mettre sous traitement te bu ñu la mettre sous traitement da ngay jël sa traitement 6 mois wala 12 mois tu es yi kon traitement bi day dem ba ay 6 mois. day dem buy durer 6 am na buy durer 12 mois. bi dul wàlle moom mois. bii wàlle moom mooy durée douze mois ak bu mu ci mënti doon boo ko jëlee ni ñu ko waxee six mois wala douze mois tu es guéri de la mais nag lu en lu mu ci mënti doon mooy ko aussi boo amee bii wàlle nga jël ko deux jours dootoo mën a wàll kenn donc jafewu la faj mais li jafe kay mooy xam bi te li waral jafe xam boobu mooy que nit ñi dañu ko fàtte tey jii mën naa ne juróom nit yoo jël ñeenti yi jàpp nañu sax lèpre amatul Sénégal donc moo tax ñuy gën a accentuer suñu communication pour que nit ñi di ci gën a bàyyi xel. voilà euh, ñu gis ne ci ndaje bi nga xam ne am na bu yàggul ci journée mondiale bi euh, wax wax nañu que ni am na wàññute boo xam ne am na ci. ci euh, li nga xam ne moom mooy atum 2019 bi donc su ma juumul chiffres yi je pense que téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeent maanaam 184 la ñu enregistré ci atum 2019. par rapport ak. 189 voilà par rapport ak 2018 nga xam ne on était à 204. absolument loolu mooy wan ni euh, nit ñi ñi ngi def ay efforts. à travers le ministère de la santé et de l' action sociale. ñu koy félicité di ko remercier aussi parce que xam nañ ni c' est pas facile. Mm-hmm. mais boo xoolee chiffres yi depuis 2016 chaque fois on est en baisse. Mm-hmm. parce que li waraloon loolu mooy en 2016 peut-être amoon na benn pic bu amoon. Mm-hmm. autorités yi réagir teg ay dispositifs. te dispositif yooyu ñu teg xëy na moo jàpp moo waral ni tey de année en année ñu ngi gis ne la situation est en baisse. Mm. donc loolu on s'en félicite mais bu ñu bàyyi suñu loxo nañu continuer di xeex bu ko defee chiffres yi gën di wàcc ba ñuy dépasser li nga xamante ni mooy éradica euh, élimination pour mën a tendre vers l'éradication. Mm-hmm. mais loolu nag day baax. ñuy continuer bañ a bàyyi loxo gën a accentuer la lutte. je pense que éradication bi 2022 lañ ci wax. waaw 2022 lañ ci wax. Mm. mais xam nga comme ni ma ko waxee tantôt. ak euh, wàllante bi ak ni nga xamante ni noonu lay yéex a génnee donc pour nga yegg ci éradication day xaw a day xaw a day xaw a jafe mais li am solo ba am solo rek mooy euh, échéance bi ñu tëral muy 2022 même bu ñu yeggul ci éradication ñu jege ko nga xam ni 2023 2024 au plus tard dina fekk Sénégal mën a éradiquer ce qu'on ce qu'on appelle la lèpre. Mm-hmm. est-ce que lèpre mën na entraîner la mort. non non la lèpre ne tue pas. Mm-hmm. déedéet pas la mort. Mm-hmm. parce que tey Euh, ni ma ko waxee léegi ni muy màndarga woo mooy heure picc tâche. Mm-hmm. mais bu la dalee loolu aussi faju woo day évoluer buy évoluer mën na évoluer ba jàpp neer yi kon donc bu ñu demee ba lay dépister xëy na peut-être dinañ la dépister ak niveau d'infirmité boo xamante ni nii moom la ñuy wax euh, de grade de bi gën a kawe mais loolu mën nañ ko éviter ci kaw ñu dépister la précocement mais la lèpre na tue pas. d'accord loolu c'est bon à savoir pour ñu ñi mën a xam exactement. lèpre lu rey. lèpre kenn du ko wàllante rek mm-hmm. euh, ah, safla kenn du ko donnante mm-hmm. parce que souvent da ngay dégg ñu naan la ndey dama bàyyi gaana mm-hmm. mais loolu amul fenn lèpre kenn du ko donnante parce que jombul kenn ku nekk mën na ko am sans départ ci nit ci système de immunitaire am ni mi li nga xamante noonu la bindoo tey ci euh, études nga xam ne peut ak statistiques yi ngeen jot jot a am par exemple bu fekkente ne am na euh, yan tranche d'âge ngeen gis ne daal ñoom ñoo ko gën a am ak peut-être côté jigéen ñi côté góor ñi ñan ñoo ko gën a faral di am exactement. waaw euh, jamono yi ñu génn muy ñaari at yi passé gis nañ ni daal xale yi ñu ngi commencé dellusiwaat ci wàllum feebar bi parce que am nañu presque quinze pour cent ci nombre de nouveaux cas ñi am yoo xamante ni c'est des c'est des enfants kon donc tranche d'âge yi day varier. mais euh, mën nañ jàpp de dix huit à vingt cinq ans ñooñu ñooñu ñi nga xamante nii peut-être ñoo ci gën a ñoo ci gën a bari. mais du jàpp mag ñu nga xamante ni ñu mais xale yi daal ak jeunes yi. léegi lay tollu seen digg ndaw daal. ñu toll ci digg ndawam. ñooñu daal lay gën di jàpp que mag ñi bu njëkk nag boo xoolee mag ñi la daan gën a jàpp mais tendance bi dafa renversé wu actuellement xale yi daal ak jeunes yi lay gën a jàpp que mag ñi. tendance boobu xamoo leen lu tax mu mu demee noonu léegi. waaw no tendance boobu nag xam naa ni il faut ñu def ay études ñu ngi ciy waxtaan ak partenaires yi. Mhm. pour mën a xam vraiment tendance bi ni mu renversé woo lan moo ko waral. mais ñun d'après suñu expérience dañ ko mën a mooy que ni mu daan jàppee mag ñu njëkk ña te mag ñu njëkk ña xëy na amaana jamono yooyu traitement bi disponible woon ni mu disponible woon nii. parce que bu boo ba temps yooyu PCT amatul. Mhm. xëy na peut-être ñooñu xëy na wàll nañ seeni doom wala wàll nañ seeni sët donc xale yooyu ñoom ñooy màgg naturellement. moo tax ñu gis ne xëy na tendance bi looloo indi renversement mais loolu il faut des études très poussées pour mën a xam exactement pourquoi la tendance a a été renversée de cette façon. Mm-hmm. may fàttali rek mbokk yéen a ngi déglu seen émission SOS santé ci Rewmi FM 97.5 tey ñuy dalal Pape Mamadou Diagne nekk njiital association sénégalaise bi nga xam ne moom mooy xeex feebar bi nga xamante ni moom mooy euh, kon lèpre euh, ci journée mondiale bi nga xam ni amal ngeen ko. donc mu nekkoon journée boo xam ne waa ministère teewoon nañ ci et tout ak peut-être ñi nga xam ne ay acteurs yi daay yëngu autour de de cela euh, yi ji yan peut-être jàngat ngeen def ci journée boobu euh, ak fan ngeen jëm daal ci ci ci xeex bi. waaw journée bi célébré nañ ko la le 26 bi passé ñu ngi ko célébré ci benn village de reclassement bu nekk Podor ñu koy wax jàmboo village de reclassement boobu juróom-ñeent la ci biir Sénégal. mais li tax ñu taamu woon foofu dafa nekkoon euh, dafa nekk village boo xamante ne ni su le plan économique dafa am solo ci biir Fouta. Mm. parce que la direction générale de l'action sociale à à travers ces ces dafa def ay ay ay investissement yu am solo pour village bi. Mm. tey village ba boo fa demee doo xam ni sax li village de reclassement social la. Mm. parce que lépp luy légume mën naa ni euh, lu ci gën a bari foofu lañ koy produire. lépp luy ceeb lu ci gën a bari fa lañ koy produire kon donc c'était pour wane. l' aspect économique bi nga xamante ni village de reclassement boobu mi ngi koy joué ci biir ci biir Podor bokk na ci aussi defaale plaidoyer pour l' abrogation de la loi 6603 loi la boo xamante ni moom moo régir les villages de reclassement social parce que bu njëkk village yooyu ku am feebar bi foofu lañu la daan yóbbu c' pour bu isoler leen pour que contamination bi bañ a law ndax jamono jooju garab amagul woon donc village yooyu c' est par décret moo ko régiroon moom la ñuy wax la loi euh, la loi 76 03 du 25 mars 1976. mais tey dañ tollu jamono joo xamante ni dañuy jàpp ne luwaa boobu dañ ko war a dindi. amatul sens lu tax lu tax amatul sens ci ñun mooy que tey jii boo demee ci village yooyu pratiquement dootu fa gisati ko feebar bi daal ay anciens malades rek nga fa gis ñoo xam ni faju nañ wér nañ. Mhm. te ñooñu dañuy màgg. am njaboot seen i doom aussi màgg am njaboot te bu fekkee danga leen defaral benn village boo xamante ni da nga ko délimité ne fii lay yam ñoom ñu war a màgg war a ami njaboot war a am ay dëkkuwaay mais kooku day doon jafe-jafe. kon donc ñu li ñuy ñaan état du Sénégal à travers membre euh, démembrements mooy que cette loi là ñu abrogé ko de telle sorte que dinañ permettre village yooyu doon am benn inclusion ci benn ci seen communauté de base parce dafa am ci benn commune bu mu aaju. kon commune yooyu ñoom war nañ leen mën a jël tey de telle sorte que comme ni ñuy jëlee seen yeneen village yi nekk ci seen biir commune intégré ko ci biir. mais loolu lépp day fekk nag euh, loi bi nga xamante ni moom moo leen régir ñu daal di koy dindi. loolu mooy indi li nga xamante ni woon moom moo ñu yóbboon jàmbo pour ñu def fa li nga xamante ni mooy journée mondiale. mais beneen bi aussi mooy que def nañ fa plaidoyer bu am solo. Mm-hmm. plaidoyer bi am solo bi mooy que euh, ñu gën a accentuer xeex bi pour que li nga xamante ni mooy éradication ñu yegg ci pour que feebar bi daal di dañ Sénégal ba faaw. donc c' est des de sensibilisation et de plaidoyer. Euh, ci village de reclassement yooyu noonu yaa ngi wax que ni dañ leen fa daan isolé ak loi bi nga xam ne moom moo ci am euh, pour vraiment ñu bañ a walla parce que période boobu garab ak yooyu amul donc tey jii si je comprends bien da ngeen bëgg a village yooyu bu dee sama déggin mu bañ amati daal bu ko defee ñooñu demaat ci seen i communauté dellu fa loolu ngeen bëgg. non c' à dire ñoom fa ñu dëkk déjà. Mm. la ñu juddoo yaroo fa. màggee fa. parce que amaana seen i maamaati maam ñoom la ñu fa yóbbu woon. mais tey jii ñoom foofu la ñu dëkk. foofu la ñu xam même bu loi bi dañuy tam fa la ñuy continuer di dëkk mais loi bi li tax moo daj mooy administrativement parlant. sur le plan administratif. dafa war a dañ. parce que tey jii foo ci dem ci ci ci ci village de yooyu nit ñi ña ngi dox xam nga nit ñi kenn mënu dañuy dem di dikk di dugg di génn kon donc li am solo ba am solo mooy administrativement parlant ñu dindi loi boobu. su ko defee amul benn euh, euh, euh, loi bu koy tënk wala bu koy régir mais day nekk village comme village yëpp. comme village yëpp voilà léegi ñoom est-ce que am na ay privilèges yu ñuy am foofu peut-être luy jóge ci état bi di dem ci ñoom ci seen village de reclassement yooyu. effectivement am na ay privilèges yu fay dem. Mm. mais tey jii dama jàpp ne nit moom mënoo ko continuer di ko di ko nàmpal. sa mm. doom sax boo ko juree di ko nàmpal à un moment donné da koy faral. Mm. bàyyi ko mu demal boppam. tey jii ña fa dëkk ñoom ña ngay liggéey. tey boo demee ci administration bi am na ci ñu ci ñoo xamante ni ils sont issus de ces villages là. Mm-hmm. ay cadres nga fay fekk. mais ñun li ñu soxal ba soxal rek mooy la loi là administrativement parlant ñu dindi ko su ko defee ñoom dañuy am benn inclusion par rapport ak les autres villages. Mm-hmm. mais bu dee bu dee quant euh, nit ñi moom kenn mun leen tee ñi ngi dem di ñëw di dugganteeg ñëpp. Mm-hmm. mais sur le plan administratif la ñu bëgg ñu dindi loi boobu parce que loi la boo xamante ni c'est discriminatoire ndax mënoo tànn juróom-ñeenti village ci Sénégal nit ñi dama defal benn décret wala benn loi boo xamante ni moom moo leen di régir pourquoi parce que dañu feebar mais feebar boobu tey jii mën naa ni dañ na fa garab am na kon donc war nañ leen mën a dindi loi boobu bàyyi leen ñu dem comme ñëpp ni ñuy demee di dikk. Mm-hmm. wax nga sànq ci say wax wàllu discrimination donc loolu bokk na ci li nga xam ne Euh, ci journée mondiale point de presse bi ngeen doon amal en prélude daal di ngeen ko ci euh, jooy jooytu loolu nga xam ne moom mooy wàllu discrimination bi boor di beeg yooyu donc yooyu mu mel ni ba tey dañu ci société bi mu ngi mu ngi am ba léegi. waaw loolu li koy indi rek mooy déficit de communication. Mm-hmm. parce que nit ñi aussi lu ñu xamul du ñu ko ñeme. Mm-hmm. mais tey jii boo gisee euh, nit ñi nga xamante ni feebar bi daf leen di dal. ñu faju wér ñu la newul lii mës nañ ko am doo ko xam. Mhm. sama cas rek doy na ci exemple. Mhm. kon donc war na nañoo mën a mel au même titre que ñëpp. Mhm. stigmatisation bi nag leen indiwu ko lu dul gis-gis bi nit ñi am ci feebar bi. cër yu damm yee cër yu dagg yeeg yeneen melokaan yi mais loolu c' est les séquelles de la maladie en tant que tel. li waral loolu ñu dem ba sori. c' est le dépistage tardif moo indi loolu. kon loolu waruñu leen ragal parce que ñooñu aussi donte seen melokaan bi xaw na ndur na lu doy waar mais amul benn danger. mu ñëw wàll kenn ndaxte faju nañu wér nañu. donc bu danger doon am sax xëy na amaana ki am buy wàlle la te kenn dépisté gu ko. kon donc je ne vois pas pourquoi nit ñi di stigmatiser ak di daw ak yooyu mais damay jàpp ne xëy na rek ñàkk xam la. Mhm. mais bu ñu doon euh, peut-être euh, accentuer la communication. ak la sensibilisation pour ki gën euh, population bi gën a mën a xam. Mhm. yaakaar naa boo di boo di dante xeet boo di boobu dina dina daal di wàññeeku. parce que tey am na feebar yoo xam ne ñoo gën a ñàng foofu te. absolument ñi dawul leen. absolument absolument <laughs> absolument. Euh, euh, tey jii yaa ngi wax sànq maladie négligée maladie tropicale négligée yi nga xam ne bokk na ci yéen li ngeen di xeex. te maladie yooyu noonu aussi nga ne lèpre bi ci la bokk tey jii maladie tropicale négligée yooyu aussi jamono yee passé am na lël yoo xam ne autorité yi ñu ngi ko ci doon amal parce que gis nañ ne ba tey euh, faw daal ñu def ci communication pour ñu ñi gën a mën a xam mais aussi ñoom itamit comme ñoom ñooy lal programme yi ñu gën a mën a bàyyi xel ci loolu tey jii la lan ngeen nam yéen en tant que association ci maladie tropicale négligée yi ci jërëjëf xam nga maladie tropicale négligée comme ni ko son leen l'indique mooy maladie yi nga xamante ne dañ leen ñàkkal solo. Mm-hmm. ñun bi ñuy taxawal suñu kuréel gi euh, dañu gis ne lèpre ñu ngi ko dugal ci biir maladie tropicale négligée. Mm-hmm. mais nag dañ ko négligé woon ci biir trop maladie tropicale négligée. Mm-hmm. moo tax bi ñu demee ba taxawal kuréel gi ñu ne ñun association lañ bi lutter contre la lèpre. mais bu ñu yem rek ci lutter contre la lèpre mais nañu ci dugalaale maladies yi nga xamante ni dañu ko ñàkkal solo muy les maladies tropicales négligées mais expertise ak expérience bi ñu am ci lèpre amuñu ko ci maladies tropicales négligées d'ailleurs on est en train de voir avec la direction euh, des des MTN te docteur Fatba Diagne jiitu ko comment avoir des euh, sessions de renforcement de capacité des membres de l'association pour que ni ñuy intervenir si la lutte contre la lèpre am ci expertise bi ñu am expertise boobu ci les MTN pour que sensibilisation yi mëne au niveau de la LEP ñu koy mëne aussi au niveau des maladies tropicales négligées te loolu incessamment xam naa ñu ci dem bu soobee yàlla. association bi fu mu nii ñaata ñaata ngeen ci toll ci ay membres ak yooyu. association bi fi mu ne nii mi ngi nekk ci euh, Dakar base bi. Mm-hmm. Dakar on est à peu deux cent trois nouveaux membres euh, deux cent trois mais mm-hmm. am na ay cellules régional cellules régionales yooyu am na Thiès am na Diourbel mm-hmm. am na Kaolack am na Louga. am na saint donc ñi ngi fi ne nii xool comment faire pour l' extension de l' association dans les quatorze régions du Sénégal. parce que quatorze régions yëpp ñoo am ñoo am ay malades de la lèpre. donc liggéey la boo xamante ni ça demande des te association bi c' est à but non lucratif parfois aussi mooy ça fait mais avec l' accompagnement des partenaires comme la DAW on est en train de voir comment faire pour mettre à l'échelle dans les quatorze régions de l' mm. li nga xam ne ci wàllu lèpre bi am na ay région yoo xam ne ñoom ñoo gën a am maanaam foofu fa lañ gën a am ay pic daal ci ci wàllu lèpre bi. dëgg la y de ces régions yoo xamante ni comme dit ñoom ñoo ëpp li ñuy notifié ci cas. Mm. région yooyu c'est la région de Dakar ak la région de de Diourbel donc c'est les régions les les qui notifient beaucoup plus de cas région de Dakar nag li koy li koy waral mooy Dakar ñëpp xam ne nañu melting pot la. Mm-hmm. ñëpp a fiy daje. donc te centre de référence bi aussi fii la nekk. muy le CHUM centre hospitalier de de Malte looloo waral aussi chaque fois bu ñu notifier le nombre de cas yi génn Dakar euh, yi génn Sénégal Dakar day nekk en tête à cause du CHUM le centre hospitalier de Rode de Malte bi nga xamante ni moom mooy centre de référence. Mhm. de traitement de la lèpre. Mhm. donc centre boobu noonu rek la moo fi faj daal affaire lèpre. non du centre boobu rek parce que état teg na fi su qu'on appelle les ISL de district ak les région c'est les infirmiers spécialistes lèpre ñoo xam dañ leen tàggat. pour que ñi nga xamante ni fa la ñu dëkkee bu leen fi feebar bi dalee ñu mën leen fa faj mais souvent comme ni ñuy wax ci wàllum stigmatisation bi nit ki amaana bu la feebar bi dalee danga naan fi ma dëkk duma fa fajoo. da ngay rus a da ngay rus a fajoo foofu amaana ñu xam ne kii lii moo ko dal. Mm. donc il préfère se déplacer dem ci beneen zone di fa jël traitement bu ko defee kenn du xam ne lii moom moo ko moom moo ko dal. Mhm. donc loolu mooy waral léeg-léeg lu ci mel ni centre hospitalier Rond de Malte di recevoir le plus de nombre de de de de mhm. euh, wàllum lépp au-delà de l'aspect euh, sanitaire dafa nekk am dafa nekk feebar dafa am aussi aspect social boo xam ne euh, chaque fois nit ñi dañ koy maanaam dañ dañuy def le lien tout le temps mooy wàllu mendicité. parce que dañu nemmeeku que ne tey jii boo demee ay zones yu mel ni plateau ak yeneen zone da gis ñu bëri ñoo xam ne ison ont cette maladie séquelle bi am na fu mu yegg ak ñoom donc dañuy mujj di def li nga xam ne moom mooy mendicité donc mu am côté boobu aussi lu bëri loo xam ne dañ koy gis daal. Mm-hmm. xam nga la prise en charge de la lèpre elle est médico-sociale. Mm-hmm. ñoom ñaar kenn mënul dem bàyyi sa morom. Mm-hmm. c'est vrai que waxtaan nañ aspe aspect médical bi mais aspect social bi aussi noonu la amee solo. te ñooñu nga wax aussi ñu nekk ci ci ci ci Dakar di di yalwaan mm-hmm. majoritairement dëkkuñu fi. Mm-hmm. c'est des gens qui viennent de de de de de Mali wala yeneen dëkk yi nga xamante ni ñoo ñu war ay Gambie parce que xëy na peut-être jàpp nañu ni fii lay gën a doxee mais lu jëm ci wàllum social bi euh, laa daaw ak euh, partenaire am yi àndal notamment la direction générale de l'action sociale mettre nañ ay programme yoo xamante ni c'est pour accompagner ñi nga xamante ne feebar da ñu yegg ci benn niveau d'handicap bi. Mm-hmm. pour que ñu mën a am ay programme yoo xamante ni de réinsertion économique pour ñu mën a mën a continuer seen dundu euh, te du am benn jafe-jafe hormis ça y a état ay programme yu mu fi teg de filets sociaux tey ji boo xoolee bourse de sécurité familiale personne affectée par la retraite dañ ciy bénéficier wu la mala couverture maladie universelle dañ leen di enrôler donc lépp loo xamante ni programme de filet social la état teg ko fi dañ leen ci enrôler pour leur permettre pour ñu mën a am benn école euh, benn euh, benn ay activité génératrice de revenu pour mën a am seen seen pour mën a mënal seen bopp seen i seen i mm-hmm. seen mm-hmm. euh, gis nañ ne que de plus en plus ci feebar yi euh, en général programme yi ay programme palu tuberculose yeneen ak yeneen dañuy impliqué bu baax a baax communauté yi booy xool sax ci feebar yooyu communauté yi ñooy porté sax le combat de plus en plus euh, xaw ma ndax seetlu nga ko ou pas mais loolu la ñu gën a gis tey ji est bëgg ngeen peut-être egg ci paradigme boobu wala déjà bu dee yéen ngi ci nu ngeen di def daal pour renforcer ko gën a impliquer communauté yi. dëgg la xam nga euh, programme PALU programme TB noonu la amee programme lèpre aussi. Mhm. muy programme national d'élimination de la lèpre. Mhm. mais souvent euh, programme yi aussi dañuy ëppante doole ça il faut il faut le reconnaître parce que boo jëlee programme bu mel ne PALU wala TB xëy financement yi muy am. Mhm. programme lèpre ko programme lèpre. malgré ses maigres moyens tant bien que mal il se bat pour que vraiment la prise en charge soit très précoce des personnes affectées par la DEP avec l'appui de ses partenaires euh, tey jii ñooñu communication bi ñuy def pour que population bi mën a xam tey bu sa yaram tàngee nga wàccu rek ñu ne ah est-ce que sibru woo demal hôpital tey jii booy sëqët sëqët bu bari sax ñu ne la yow ah doo dem xool si sëqët si ndax communication bi niñ ko niñ ko tegee la mm. programme national lépp mi ngi ci parce que bu yàggu rek amoon nañ benn lël boo xamante ni tëju woon nañ ay fan pour élaborer des outils de communication am nañ ay spot rajo am nañ ay affiche ay dépliant yooyu yëpp defar nañ ko mais xam nga yooyu yëpp sa demande des moyens tey journaliste nga xam nga li may wax par spot rajo pour nga jaarale ko ci ci yenn rajo yi ça demande des moyens te bu fekkee aussi programme bi moyen demul noonu partenaires yi koy jàppale aussi peut-être ils ont d'autres priorités mooy le bi donc loolu day daal di doon euh, euh, sooxe moo tax ñun association parfois on organise des caravanes de sensibilisation on organise des day des PAD ak suñuy dépliants pour di sensibiliser nit ñu en attendant qu'on ait des financements yoo xamante ni ñu mën a permettre ñu mën a def benn focus bu am doole ci li nga xamante ni mooy communication bi envers les rajo et envers les télévisions. mën a def campagne de communication. absolument c'est ça moom mën a def campagne de communication. Mm-hmm. pour que nit ñi mën a xam exactement lan mooy feebar bi. Mm-hmm. parce que néew na looy seetaan télé wala déglu rajo dégg fa wàllu lépp bu weesoo journée mondiale beeg yooyu. absolument li waral lool rek mooy li ma la wax léegi xëy na peut-être manque de moyens la. Mm-hmm. parce que tey bu ñu sañoon euh, dañuy sponsoriser ay émission yu bëri. def benn tappage médiatique comme on dit. bu boobaa di nga mën a jàllale sa sa message mais comme je vous l'ai dit tantôt ça demande des moyens. Mm. on est en train de chercher les moyens donc avec l'appui des partenaires et de l'État je pense qu'on va y arriver incha allah. Mm-hmm. Euh, ci programme bi est-ce que tey ñoom programme de lutte bi euh, envisagé nañ par exemple def ay genre journée de dépistage gratuite. yu demee noonu nga xam ne nit ñi dina dinañu dinañu xëcc nit ñi daal peut-être dem ci zone yi nga xam ne gis nañ daal foofu nit ñi moom dañ fay faral di fa am ay yooyu ñu dem foofu jege jege askan wi bañ a xaar tout le temps que nit ñi di jël seen initiative pour dem. absolument programme ñi dañoo ragal hôpital. dëgg la li nga wax lu am solo la. Mm. te loolu sax OMS moo ko recommandé. Mm. heureusement que ñun OMS bi muy def recommandation yi ñun fekk nañu ci ak le programme. Mm. muy ay stratégie avancée. ce qu'on appelle le dépistage actif. parce que yàlla a le dépistage passif. mooy da ngay toog yow euh, personnel sanitaire bi nit ki déplacé wu ñëw mais y a le dépistage actif boo xamante ni bii c'est le personnel qui se déplace vers la communauté. Mm. donc am na ay euh, euh, campagne de de consultation. yu bëri yoo xamante ni le programme def na ko en rapport avec les partenaires et l'association dem ci zone yi nga xamante ni jàpp nañu c'est les zones de forte prévalence pour ñu mënee fa ay campagnes de dépistage actif pour mën a déjà briser la chaîne de contamination cas ya nga xamante ni génn ñëf ñu te leen mettre sous PCT su ko defee dañuy faju daal di wér duñu am benn jafe-jafe. d'accord am na am na solo euh, ci financement yi lañuy lañuy taxaw euh, association quand xam nañ ne pour mu survivre dafa am ay moyens yu mu yu mu laajte tey yéen parce que yaa ngi sànq ay partenariat yi ngeen ak ay allemand yooyu seen source de financement yi. waa ñun suñu source de financement déjà ci ñun la njëkkee. Hmm. en tant que membre. déjà dañuy cotiser ci suñu biir li ñuy cotiser moom la ñuy jël di ko defaat su forme de revolving suñu biir mooy que ñenn ñi nga xamante ni peut-être amuñu lu ñu jàpp. Mm. ñu xool naka lañ leen defee benn petit financement pour ñu am activité génératrice de revenu mais y a aussi une subvention que nous recevons de la direction générale de l'action sociale. Mm. subvention yi parfois mu nekk tous les ans parfois mu nekk tous les deux ans. y a aussi les organisations yi nga xamante ni comme la DAO comme d'autres partenaires si on a des activités qu'on dañ leen di defal benn plan d'action defal leen terme de référence ak budget ñoom ñu accompagner ñu mënee activité de sensibilisation yooyu donc ñun suñu source de financement foofu lañ koy tiré mais dafa doon loo xamante ni pour ñun du luy wéy. Mm. parce que ñëpp xam nañ ni ONG am na durée de vie tôt ou tard day dem kon li am solo ba am solo mooy que ñun en tant que organisation local ñu mettre ay dispositifs yoo xamante ni pérennisation dina am ci suñuy activité parce que booy dépendre ci benn nit mu lay financer bis financement da am jafe pour dem. kon donc li am solo am solo mooy teg ay dispositifs ak ay mécanismes yoo xamante ni même ki bu fekkee mënatu financé yow fekk yow teg nga dispositif yoo xamante ni nga mën a continuer a ñuy def revolving yooyu ñu la doon wax ak yenn activité génératrice mm-hmm. am na am na solo donc daanaka li des ci émission bi euh, bariwul euh, peut-être ñu ñëw tey jii ci li nga xam ne moom mooy seen i perspective ak lan ngeen daal fas yéene def ci jamono yi nga xam ne dëgmal nañ ko euh, parce que at moom yàggul donc balaa ñuy toogaat encore ba le 26 oct euh, janvier di leen déggaat euh, fu mu toll nii lan ngeen fas yéene daal def pour vraiment nit ñi bañ a fàtte affaire feebar bi. waaw déjà euh, perspective yi mooy déjà continuer la sensibilisation mm. elle est capitale fexe ba nga xamante ni aussi ce qu'on appelle le dépistage précoce de la lèpre mm. continuer di am. Mm. parce que yëpp mooy que tey jii ku feebar bi dal nga teel a faju teel wér. mën a continuer say activité mm. éviter daal mu nga yegg yenn degré d'infirmité yi mais beneen perspective bi ñu am aussi mooy que wax naa ko tantôt que ni association bi maa yeegul territoire national bi yëpp am na ay régions yu des te bëgg nañu fii ak balaa déwén au moins ñu jël trois ba quatre régions yoo xamante ni dinañ ko yokk ci yeneen cinq régions yi nga xamante ni déjà am nañ fa ay cellules yu ñu monté mm. donc loolu mooy li nga xamante ni mooy perspective yi nekk suñu kanam mais beneen perspective plan d'action boobu plan d'action association bi la bu ñu ko tëggee soumettre ko suñuy partenaire ñu xool naka la ñu koy financer fii ak trois ans nga xam dañuy dérouler ay activités non stop te yaakaar naa ne bu ñu ko doxalee noonu dérouler ay activités non stop pendant trois ans dina am benn impact bu positif ci nga xamante ni mooy lutte contre la lèpre au niveau du Sénégal. Hmm. que jéem a peut-être inter internationaliser peut lëkkaloo ak yenn association yoo xam ne peut-être ñu ngi nekk ci yeneen réew et tout cela pour gën a mën a boole doole. waaw loolu ñu ngi ci déjà parce que association bi. Euh, membre la ci alliance africaine des organisations de personnes affectées par la lèpre. Mhm. donc alliance la boo xamante ni day regrouper ay dëkk yu bëri. Mhm. lu war a mat presque fukki fukki réew ñu ngi ci. donc ñun organisation boobu ci la ñu bokk d'ailleurs incessamment sax ñu ngi wàcc suñu congrès Freetown pour xool naka la ñuy defee benn congrès pour defaraat suñu bureau incha allah. Mhm. donc association bi mu ngi commencé wut ay partenariat au niveau de l'Afrique xool aussi naka lañ koy au niveau de Mm-hmm. voilà ñu jeexal émission bi te waxuñu ci fu mu toll nii li nga xam ne moo lëmbee àdduna je pense que xam xam nga li ma bëgg a wax mooy coronavirus. donc loolu quand même mu nekk lu lu doy wax loo xam ne mu ngi xew fële sa Chine waaye dafa mel ni fu mu toll nii ci buntu kër yëpp la xew ndax rajo boo déglu tele boo déglu loolu loolu ngay dégg euh, rawatina mu am ay doomu Sénégal yoo xam ne ñu ngi nekk bitim réew aussi donc mu nekk. urgence boo xam ne OMS sax dañ ko daal di wax. absolument loolu dëgg la mu doon loo xamante ne nii euh, jaaxal na àdduna. Mm. donc li ñu mën rek mooy ñaan parce que yàlla moo ni ñaan leen ma ma may leen. donc ñamu dal aussi dëkk ya mu nekk yàlla dimbali leen musal leen ba nga xamante ni nañu ci génn ak jàmm mais dëkk yi nga xamante ni dalagu leen aussi mu mel ni ci suñu Sénégal gi yàlla suturaal ñu te keroog rafetlu naa trop le fait que le ministre de la santé déplacé wu dem aéroport dem port. xool dispositif yi nga xamante ni teg nañ ko fa pour ñi nga xamante ni jóge nañ maanaam ci réew yooyu ñu jàpp ne am na fa pour ñu teel leen xool ndax feebar bi indaale nañ ko wala wuñ ko mais doomu Sénégal yi nga xamante ni ay étudiants lañ te nekk nekk xawaan googu. Mm-hmm. aussi ñi ngi ñaan état du Sénégal mu xool naka la leen mën a jàppale pour rapatrier leen. ah ñoom nee nañ mënuñu ko. waaw état état mënu ko bu nee mënu ko xëy na peut-être amul dispositif bu mu ko defee. Mm-hmm. mais coopération am na. Mm-hmm. tey ji gis nañ yeneen réew. yu dem jëli seen i doom dugal ci yeneen doom yoo xamante a lëkkaloog ci ay relation yu mm. mm. dugal ci ay doomu Mauritanie dugal ci mm. ay doomu Maroc dugal ci ay doomu Tunisie kon pour man suñu état bi war nañu mën a lëkkaloog état yooyu pour que bu ñuy jëli seen doom ñu jëlaat suñu doom indil ñu ko fii Sénégal balaa feebar bi di dal mm-hmm. mu nekk kam mu doy waax parce que ñoom espoir la yaakaar la ñu am te tey je pense que ku nekk bitim réew am yaakaar rek sa am jafe-jafe sa réew moo la wax a wàllu je pense que loolu moom lu am solo la surtout ci lu lu mel ni wàllu feebar a xam ne bakkanu doomu aadama mu ngi ci. dëgg la hmm. dëgg la li waral loolu sax mooy souvent da ngay gis américain yi ñoom seen benn doom rek. Hmm. daf leen yi jaral ñu mobiliser tout la république. Hmm. te gëm naa ni le président Macky Sall aussi ci dynamique boobu la nekk mais lu mu ci mënti doon rek mooy que ñii ay doomu Sénégal bàyyi fii seeni parents demoon sàkku ci xam-xam mm. te muñ demee sàkku ci xam-xam xëy na ba ay tolof-tolof bëgg leen fa fekk pour man li war ci suñu état bi rek mooy mu fexe mettre ay dispositifs ay mécanismes yoo xamante ni dinañ leen rapatrier indi leen fii ñu dolli ci seen njaboot mm. te gëm naa ni euh, euh, bu ñu amee waxtaan bu ñu def ak yeneen réew yi rek dinañ mën a trouver solution pour xool naka la ñu leen di jëlee fële indi que neexul ci xool aussi nga dégg sa état naan awma moyen mm-hmm. loolu day daal di xaw a day daal di xaw a doy waar mais nañu xool rek comment faire vraiment pour les rapatrier ñu ñëw ñibbi si Sénégal toog ci seen njaboot loolu day daal di lu am solo. voilà euh, Pape am Pape Mamadou Diagne émission bi jeex na ñu may la rek nga tàggatoo ak mbokki auditeurs yi ak aussi dénkaane bi ngay dénk euh, association bi nga xam ne. Euh, ci nga nekk mais également euh, cause bi nga xam ne moo tax ngay xeex. Mm-hmm. waaw jërëjëf soxna si déjà ma remercier la yow ci invitation bi nga ñu invité. Mm-hmm. vraiment permettre nga ñu aussi ñu mën a véhiculer suñu message. permettre nga ñu aussi ñu gën a mën a def communication. parce que souvent damay wax ne la lutte contre la lèpre c'est pas l'affaire de l'association. Mm-hmm. c'est l'affaire de tout un chacun. c'est l'affaire de tout un Sénégalais ku ci nekk da ci war a dugal loxo sa loxo parce que dara bu xawee. waxoo ci doxoo ci. Mhm. mën na dem ba dugg sa biir kër. Mhm. te loolu dafa doon loo xamante ni lu ñu war di bàyyi xel na beneen bi aussi mooy que remercier association bi ak tous les membres parce que vraiment ñi ngi góorgóorlu di def liggéey bu am solo tey bu ñu demee ba ministère de la santé et de l'action sociale à travers le programme national lèpre doon suñu partenaire ba lépp lu muy def daf ñu ciy impliqué duñu laaj suñu xalaat xëy na dafa gis ne liggéey bi ñu def am na solo te amal na njëriñ li nga xamante ni mooy combat wu mais aussi di remercier les partenaires techniques et financiers yi jàppale état du Sénégal parce que nañ ni comme ni ko Macky Sall waxee amul assez de moyens sans les partenaires du dem kon donc day à chaque fois bu ñu def communication dañuy insister ci remercier partenaires yi parce que ñoom ñooy tax programme bi mën di dox tey jii le euh, tuberculose bi nga duñ doon wax léegi wala paludisme bi li tax ñu am doole mooy partenaire ñu ñoo leen di jàppale am partenaire yu am doole kon donc partenaire yi fi nekk tant bien que mal di jàppale état du Sénégal ñu leen remercier aussi di leen ñaan nu ñu gën a continuer pour jàppale Sénégal pour que vraiment éradication bi ñuy wax lee pour ñu mën ci àgg incha allah mais di dénkaane population bi aussi ñu bàyyi xel ci feebar bi xam ni mi ngi fi donte néew na parce que boo jëlee plus de 10 millions de Sénégalais nga ci deux cent quatre-vingt-neuf personnes na ñoo loolu vraiment du lu bëri. kon donc bu ñu góorgóorloo rek vraiment ñooñu dañ leen mën a jël en charge végé la chaîne de contamination dootuñu waxati waxi lépp. Mhm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup jërëjëf soxna si. Mhm. may fàttali ni tey ñu ngi doon dalal ki nga xam ne moom mooy euh, Pape euh, Mamadou Diagne. moom mooy njiital association bi ëmb euh, fii ci Sénégal ñiy xeex wàllu feebaru lèpre waaye tamit feebar yi nga xam ne dañ leen ñàkkal fayda diñ naan kon maladie tropicale négligée tey ñu doon waxtaanee wàllu lèpre ak jafe-jafe yi ci am nu ñuy def ak yooyu pour euh, jëlee ko fii ak lépp loo xam ne daal ay programme la yoo xam ne ñoom ñu ngi ci ak i mbébét ngir euh, feebar ba mun a dellu gannaaw matu Diallo moo nekkoon ci kàddu gi di leen dig daje vendredi prochain incha allah beneen émission ak euh, beneen thème beneen invité ci Rewmi FM cinq ci seen émission SOS santé.